dal leen ak jàmm mbokku internet yu Senfootball TV di am mbégte saa ne defal leen vidéo maa ngis gis maa ngi gis euh, abonnement yu bees yi xam ak ñii di partager ñëpp maa ngi leen di remercier bu baax baax yen samay internet di leen wax merci jërëjëf mbokk yi tey nag damay ñëw wax si match aller retour. Euh, match barrage coupe du monde yi xamante ne moo war a amee fële Qatar gis ngeen nag waa CAF dañoo defoon benn waxtaan wala benn daje benn assemblée sénéral AG léegi dañu waxtaanee euh, si match barrage yi ni ñu bëggee mu amee ni mu war a tëralee euh, déggoo nañu ci kàddu ñoom ñëpp boo wax ni mu war a tëralee dégg nag lenn lenn leen wax mooy que. comme que dix équipes la ñu wax dix équipes yi ñooy daje seen biir mais waxoon naa leen si benn vidéo Sénégal par rapport ak euh, positionnement euh, FIFA bi nekk maanaam première nation africaine am na équipe yoo xamante ne mën a jàmmaarloo ñu si mel ni Maroc ñu si mel ni euh, Algérie ñu si mel ni Tunisie ñu si mel ni Nigéria mënul jàmmaarloo ak ñoom donc Égypte moo ko dese Congo la mën a jàmmaarloo donc ba tax na dañu wax ne classement FIFA mooy mooy tax équipe bi mën a recevoir. Euh, dernier match bi maanaam Sénégal par exemple euh, match retour bi Sénégal la koy joué loolu classement FIFA moo ko yeneen équipe yi bëgg am loolu tamit seen classement lu mu gën a baax euh, loolu danañ permettre yu si ni ay Algérie yooyu xam ñuy recevoir match retour parce que loolu avantage la match retour di nga ak say supporter bu ñu feesee dal xam boo waree par exemple match nul nga soxla victoire 1-0 yu demee noonu. ses supporters mën nañ la pousser donc loolu euh, waa CAF no loolu lañ tëral si benn poñ bu xamante ne taxawal nañ ko beneen affaire bu xamante ne dañ ko exiger mooy euh, foog mu am VAR dañ ne VAR moom forcément stade yëpp ñoo ko ram parce que commencement bi temps il passe dañoo wax ne par exemple stade jëm ñaajo euh, mën na ko am parce que stade bu bees la naan benn stade rek moo ko amoon muy Maroc cet fois ci nag waa CAF dañ ne stade yëpp dañ koy am stade yëpp day am VAR xam nga muy match aller bi muy match retour bi loolu benn poñ boo xam ne dañ ko waxtaanee ñu déggoo ci kaddu donc si ay affaire yu xamante ne andi nañ ko ñaar yi lañ leen mën a wax yoo xam ne am na solo mooy que sa classement fi quoi da lay permettre match retour nga mën ko jouer si dëkk beneen bi mooy VAR donc mooy ñaari poñ yu xamante ne ñoom ñëpp si déggoo. kaddu pour que masse barrage coupe du monde mu am ci et voilà c'est intéressant euh, parce que football africain faut que mu avancer et que match yi da ngay gis ne parfois ay hors-jeu ay détails ay fautes ñu waroon a rouge du rouge ñu ko VAR bi am solo dina mën poser peser masse donc c'est important de les tàmm que ce football mondial que ça soit si compétition yi gën a mag coupe d'Europe bi ngeen Copa America ak leneen ak donc mbokk yi euh, ci commentaire yi wax leen ma c'est seen xalaat ak seen gis-gis ba leen di jaajëf nag bu baax baax dinañ wax ba benen sur Senfootball TV bu leen fàtte di abonné ak di cliquer ci boobu ngeen di gis vidéo bu ñëw ngeen man ko seetaan jërëjëf ba beneen